wax leen ma nag màkka lu tax ñu ne ko màkka wax leen ma doj wu ñuul wu leer wa ca kaw ca kaaba ga lu tax ñu koy fóot ndigalal yàlla yàlla ko màggal wax leen ma madina ñaareelu ñaari xaram yi lu tax ñu koy màggal yàlla ma ngo yàlla maa màggal lu ay barab màkka ak madina ak baytul muqaddas ak nag mbooleen barab bi diine yi nga xam ne yi jàngkaayu diine la ci kaw sartu surtout bañ faa am bu surtout amee taxasul ñuy wax bu ko defee màggal ay jamono xam ngeen ne bisu àjjuma yàlla ko màggal xam ngeen ne weeru koor yàlla ko màggal yooyu yëpp xam leen dox leen seen gën a màggal leen bokk la ci liy faj dooful iman mu ngo bu ko defee ba tey bokk na ci liy faj dooful iman te bokk te loola bokk na ci tazimu xurumatillah bañ a xeeb bàkkaar bàkkaar kenn du ko xeeb ak mbàkkaan ak ak ngaynde ak ak jaan wax leen ma ak njaan ak njaan lu ngeen ci xam ak njaan mooy jaan bi ndaw lu ko seene lu ngeen ci xam ah ak ngaynde nag ak mbàkkaasam ak mbàkkaasam amul xamu leen ne mbàkkaar bu ndaw waxin la rek waaye lu tere daraja yi ki ko tere ci lay màgg daraja yi ki ko tere xool leen rek su fekkoon ne préfet daa décrété ne tey jii bu kenn génn waaye nag ci préfet la yem ku génn mën ngaa am ko la fitnaal rek waaye fitna ji du am solo boo boo boo boo boo dee xaw la am def ñu bàyyi la nga dem du rek waaye nag bu fekkee décret bi daa weesu préfet daa jóg ci gouverneur décret bu jóg ci gouverneur ak jóg ci préfet ñoo yem diisaaya yemuñu diisaay di ku jàdd ndigal yi ndax ñoo tolloo ay conséquences déedéet waaw bu fekkee décret bi nag daa jóg ci ministre de l'intérieur la l'intérieur daal moo wax demal boppam ba ca rajo ba télé ba mu ne tey jii ci wax sàng boo sàng bu kenn génn yow ngay da ngay génn moom mbaa da ngay xaru ah waaw bu dee nag bu dee nag ki jiite réew mépp nag moo moo demal boppam waxal boppam nag kon du gën a garaawa du ndigal yi gën a ki joxe ndigal li mbaa kare gi lu mu gën a kawe rek mu gën a garaaw waaw kon nag bisimilah jàll leen rek bu leen yem foofu jàll leen ci borom asamaan ak suuf ki moom Afrique moom Amérique moom adduna bi koom jënt dag weer wi kooku moom bu ne bu kenn def nangam bu ne sëb ñaari bët yi bu mu siggi mukk tege ci ñaari bët yi jigéen nga ne ah loolu amul sax bàkkaar bu ndaw la ana fu mu ndara ana fu mu ndara bàkkaar des koy daw lu raw li ñuy daw jaani njàngoor jaani njàngoor mun na la weesoog yow matt la nga dee dugub ba mel foofu lay yem ak yow bàkkaar moom ñaari jeex namal dem ak yow moom moo tax bàkkaar des koy moytu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne iyaakum wa muxaqaraati zunub fa innahunna yajtami'na ala rajuli xatta yahliknahu yonent bi ne na ngeen moytu bàkkaar yi ñuy xeeb ndax bàkkaar yooyu ñuy xeeb mooy dajaloo di dajaloo di dajaloo bëri xëy alak la day am lu mu bañ bañ du wér te mooy ak kéefar ak yéefar ak yoonu kéef waaye koo xam ne kii foo dem rek ànd ak ñooñu boo nekkee ci mboolam faramason yi ak faramason nga ba nga fay jóge boo nekkee ci PS yi PS nga ba nga fay jóge boo nekkee ci jullit ñi ab jill nga ba nga fay jóge boo nekkee ci laïcité yi ay la ab laïc nga ba nga fay jóge ma yow ko noo noo mel xanaa kakkatar nga xam ngeen kakkatara kakkatar nu mu mel ah amul mel na day loolu de baax loolu ab jill de day am wala am bara wala mooy nga féete ci yàlla féete ci islam féete ci jullit ñi féete bu fés bu leer soo waxee mu feñte boo defee mu feñte nga dund ko bara mooy nga génn ci kéefar génn ci yéefar yi génn gu wér boo waxee mu fenke boo ñëwee mu fenk loolu loolu awal awal bara loolu tam góorgóorlu ci bokk na ci yi faj doofal iman ba tey am na amalul qulub amalul qulub ay jëf la yoo xam ne ci xol bi la aju xol bee koy jëf te mu jëm ci yàlla loolu sàmmonteeg moom dana dindi doofal iman bokk na ci ak bëgg yàlla gaal yi ndax bëgg ngeen yàlla ak bëgg yàlla ni ñu koy natta seetal lu la yàlla jaral seetal lu la yàlla jaral bëgg dem bu damaa am ku may waxtaanee mu ne ma diw diw takk na jabar may na ko oto ay may na ko kër ah may na ko lu jafe ci jamono ci am dafa ngeen ne oto yomb na ah ma oto yomb na kër nag kër ndakaaru yomb na ndaw saa ko jaral ndaw saako ba jaral am déet yow nag lu la yàlla jaral seetal ba xam lu la yàlla jaral man tey oustaz Sayba li mu doon laaj bi léegi ak laaj bi métti na fi man lool waaye teewul ma nangu ne bu nit waree mën a fab oto may ko ak ndaw su muy takk kay xalaat di war a mën a fab oto joxe ko ci yoonu yàlla am déet bu fekkee bëgg yàlla nga fa bëgg nag ay jëf lay doon loolu nag bokk nag d'accord ci laaj bi laaj bi daal moom métti na ma lool waaw ah di nee neer naa laajaat ah man de bu kaccit ma ja kaccit ma ja de laaj bi fekk ma fu ñuy laajee waaw léegi bëgg yàlla bëgg yàlla ak ragal yàlla bëgg yàlla jëfi xol la ragal yàlla jëfi xol la mu nga yaakaar yàlla koy booy yaakaar yaakaaral yàlla mu nga booy ragal ragalal yàlla ki yor lor ak njëriñ kenn la de mooy yàlla rafetal njort ci yàlla wàccir lool ci yàlla li yàlla dogal na la gërëm na nga ko gërëm gërëmal dogalub yàlla santal yàlla ci ay jëfam na nga fexe ba dëggul ci kanamu yàlla dëggul ci kanamu yàlla nit ku baax day dëggu ci yàlla dëggu ci yàlla mooy lan mooy li nga wëlëranteeg yàlla li nga dig yàlla nga def xamoo ne da ngaa dig yàlla di ngay julli di nga saree fatiha ndax nee nga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in loolu la ñuy firi iyyaka na'budu mooy yow yàlla dong la ñuy jaar waaye iyyaka nasta'in te ci yow yàlla dong la ñuy sàkku ndimbal bismillah yow yàlla dong la ñuy jaamu nga jógee fa dem di jaamu sa sëriñ waaw jaamu sa sëriñ jaamu sa leader politique xam na képp koo topp topp mutlaq ba nga xam ne mën na laa def loolu xaraam mën laa bàyyi loolu war da nga koy jaamu yonent doo ko firee noonu kon nag bi nga demee ni yàlla iyyaka na'budu yow yàlla danga la ñuy jaamu jóge fi di jaamu sëriñ ba wala ngay jaamu leader politique ba boo sambaratee boo laajee fatiha baat ne iyyaka na'budu yàlla na fen nga fen nga malaaka yi na fen nga fen nga ab julit nag day dëggu ci yàlla boo digee yàlla naa la jaamu te jaamu la yow dong na nga ko def boo demee ci sayyidul istighfar allahumma anta rabbi laa ilaha illa anta yow yàlla yow dong yaay sama buur kenn du buur ku dul yow kenn yorul defal dindi ku dul yow ku dul yow kenn yorul lor ak njëriñ ku dul yow xool lim baat yooyu de yaa ko wax de yaa ne yow dong ngay buur de yaa ne kenn yorul defal dindi ku dul yow de loolu boo ko gëmee te muy dëgg ci yow dana feeñ ci sa comportement de boo ko jógee di ragal keneen fi nga gëm ne yorul lor ak njëriñ loo koy ragale loo koy ragale di nga rek di nga yaakaaree lor mbaa njëriñ ci bindaa kon kon boo nee yàlla kenn yorul lor njëriñ ku dul yow moo kon li nga ko wax ndax dëggu na ndax dëggu nga dëggu woo wax ci dëgg la waaye yow dëggu woo mu nga xalaqta nii yaa ma sàkk wa ana abduka taman kat jaam la wa ana ala ahdika wa wahdika taman maa ngi ci la ma wëlalanteeg yow te maa nga ca la ma la digoon ah moo loolu la ko wax baa yaa ngi koy def maa nga ci sama kem kattan denc ma dara dara lu ma dese te def ma ko ci ma sa tax abu laka bi ni'matika alayya wa abu waaw xam nga loolu ñaan yooyu ku koy wax yàlla war a fexe boo fi jógee bu fañ sa comportement bu dul ñaan yi itam fatiha ji ngay jàng alxuraan ji ngay jàng li ngay wax booru koowee mu nga di ngay di ngay ñaan ci julli duwaawul istiftaax di nga waxee wajjahtu wajhiya lilladi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana min al mushrikin mooy jëmale naa sama njër ak sama jëmm ci yàlla buuru asamaan ak suuf bàyyi naa fi mbooleen yoon yi dul loolu te jébbul naa ci yàlla bokkuma ci ñuy bokkaale inna salaati sama julli gii may bëgg a julli wa nusiki ak mbooleen samay jaabu yàlla wa mahyaaya ak sama dundi gi lépp wa mamaati ak sama dee gi lépp lillahi yàllaa ko moom jox naa ko yàlla ah ba yéen da ngay wax loolu ci julle da nga da ngay wax loolu ci julli mbaa du ngeen ko wax ci julli bu ne fa jógee fa di def lu bokkut ak loolu xaaj dund gi jox ci yàlla tuuti lenn la ngeen jox ko service ba lenn la ngeen jox ko jabar ji lenn la ngeen jox ko doom yi lenn la ngeen jox ko sëriñ bi lenn la ngeen jox ko këñ ci nag xar yi yàlla du bokk di yàlla du bokk kat yàlla kenn la càppacu li mu nga kon ba faaw nga dëggu ci yàlla subhanahu wa taala te di ko te wóolu ko moom yàlla te di ko tuubal mu nga ak yeneen yu dul loolu ci amal yi nga xam ne ci xol bi la nekk te bu déggoo ci xol bi rek feeñ ci cër yi am na ay maqaamaat ñu topp ci loolu maqaamaat yooyee ab jàng daa war a jéem a àgg pour mën a àggale am pajam te mi ngi tàmbalee ci jub li yàlla wax sayidna Muhammad ne ko fastaqim jubal xoj ci kitaab ak sunna kama umirta comme ni nga ko sante istiqaama boobu nga góorgóorlu ci inaaba mooy jublu ci yàlla nga góorgóorlu ci nu nga bu ko defee fàttaliku yàlla ak sax ci moom tënku ci kitaab ak sunna noo loolu lépp bokk na ci amalul qulub yi nga xam ne dina dindi dooful iman ba tey bokk na ci muhaasabatu an nafs muhaasabatu nafs mooy lan muhaasabatu nafs lu am solo la ci faj dooful iman mooy kenn ku nekk ci yéen tey jii bu demee ca këram bu demee ba guddi ba wunaasi la ba àggal ba ne rëcc ci lalam di waaj a tëdd bala moo nelaw na am benn instant boo xam ne day inventaire li mu def ci bëccëg bi lépp ak ci guddi gi kañ nga yeew woon kañ nga yeew woon tey ci cinq heures bismillah cinq heures bismillah cinq heures jooju nga yeew woon ca njël la ko tàmbalee ca fa nga yeewoo ci cinq heures da ngaa dem ca wanag wa da ngaa jàpp da ngaa xëdd da ngaa woor la ko fa tàmbalee ba fi nga toogee ci kaw lal bi ci guddi leeg bëccëg bi li nga fi def lépp na ko inventaire na nga seet ba xam lu ciy tuyaaba lu ciy bàkkaar nga ber fee tuyaaba yi ber fee bàkkaar bu yem foofu na ba noppee na nga seet ba xam ci biir vingt quatre heures boobu lan ak lan la la ci yàlla sant nga seet ba xam ndax warugar yooyu mat na wala matut du jàng ngeen comptabilité lu ngeen xam ci comptable chef comptable boo xam ne daa liggéey ba wàcc six heures jot muy bëgg a tëj muy bëgg a tëj nag ay carnet ak coffram mu xo def inventaire xool ñu dafa amoon ay capitaux yu mu génne capitaux yi warta ñëwa bu ñëwee ndax warta indi bénéfice capitaux yi mooy ci yow jullit bi mooy mboolem warugar yi la yàlla waral def nga ko ba mu mat nekk benn manque manque woo fi jullit farat te julli bu nekk def nga ko ni mu waay su fekkee am nga fi lenn looy gàncax gi dara dara manque wu bénéfice bi mooy bi waajibaat yi matee def naa ay manduubaat am na loo nangam naa ko def muy tiyaaba te warul woon sañ naa ko bañ mu ci am bàkkaar ak nangam ak nangam ak nangam bu yooyu ñaar paase la tees mooy def mu fi ay bàkkaar naa bàkkaar sangam def naa ko am bàkkaar sangam nga tuub fas yéene bu ëllëgee li manqué woon ci capitaux yi dem daa manqué bu dara manqué ci ëllëg bénéfice na am bu baax ëllëg ay bàkkaar muy perte mu am ëllëg loolu mooy muhaasaba jullit bu ne war na koo saxal bis bu ne di ko def ndax loolu bis bu nekk yéen a ngi koy def bu ngeen demee bis bu nekk deelu nga def mooy muhaasaba sama borom yàlla kat moo wax ne suuratul xasr aaya fukk ak juróom-ñett yaa ayuha alladina amanu taqu llaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin wattaqu llah yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla na ngeen ragal yàlla te bakkan bu ne na seet li mu dawal mu dem ëllëg li nga dawal mooy li nga jëf ci aji mu dem ëllëg da nga koy seet yenn saay kon nag bul def di wale ko rek di di def di wale ko rek da doo seet dee seet li ngay def kon boog seet boobu ñuy wax muhaasaba bokk na ci li nga xam ne dina beesal gëm yàlla dina faj dooful iman fikkeel baat juróom benn mooy mujaahada mujaahadatu nafs mooy nga jiyaar ak sa bakkan bakkan dees di jiyaar ak moom xeex ak moom nit yàlla yi dañoo wax ne xaqu nafsi an tujaahad wa xaqu ruuxi an tusaahad dañoo wax ne bakkan li àqam mooy ñu xeex ak moom forte ko ba mu def li yàlla bëgg xam nga bakkan lu mu bëgg lu neex xam nga bakkan lu mu bëgg lu noppale te loolu nag baax lu neex lu noppale rek seytaane lu bon la bëgg seytaane mi ngi fi bakkan mi ngi fi ñoom ñaar ñoo lay dugal ci alkande seytaane nag moom li mu lay dugal xam na ne alkande la daa bon bëgg laa yàqal bakkan nag moom xamu ci dara moom seetut lu baax ak lu bon lu neex rek la bëgg ak mu lay def ak lu noppale soo dee bëgg a naa fi la guddi daal mu ne la waaye loolu attanoo ko daal netti ba bëgg a joxe dara ci yàlla mu ne waaye bu joxe loolu daa bare dootoo am loolu da koo kon di sooy bëgg a looy bëgg a def ci lu baax mun la déet du ci dal moo tax alquran di ko inna an nafsu l ammaratu bi suu wa ma ubarriu nafsi inna an nafsa la ammaratun bi suu bakkan santane ko def lu bon lu ngo moo tax tam alquran ne nañuy safaan bakkan wa amma man xaafa maqama rabbihi wa naha nafsa an il hawa fa inna al jannata hiya al mawa nee na ki nga xam ne kii dafa ragal yàlla nee na kii ragal tey bàyyi xel taxawaay bi mu nar a taxaw ëllëg ci kanamu boroomam loolu tax koo tere bakkanam la mu bëgg kooku boo laaxiree àjjana dañ koy fay surtout naasaxaat ay ñeent fukk ak ñeent fukk ak benn kon boog bakkan bi faw ñu koy tere li mu bëgg faw nga dal bakkan bi ak ndéenéer faw nga déclaré ko guerre faw nga forcé bakkan bi ci topp yàlla faw bakkan bi nga di ko jox muy lekk tam bañ a suur xam ngeen bakkan lu gaaw ci dawloo ko jox ko mu lekk ba suur naan ba man jox ko mu sol lu rafet jox ko mu dëkk fu rafet tëdd fu nooy day daw de bakkan day daw day fooy bakkan des ñu xeex ak moom bu baax bakkan da nga koy jox mu lekk bay bëgg a suur nga ne ko doy na mag ñu baax ñi dañ daan wàññi seen i tib bu ñuy lekk dañuy wàññi bu ñu amee naan mu tib bàyyi te fekk suur ñu de waaye dañuy bàyyi bu ñuy naan bàyyi am na nit ku baax koo xam ne danaa wut booba peñi suukar am na daa wut peñi peñi suukar mbaa ñaari peñ teg ko ci tafla bi teg ci ay kaasi ataaya teg ci baraande bu rafet teg ci wargu maftuul wu neex xam ne wargu maftuul wargu wu neex teg ko fa nag di ko xool rek di wax bakkan bi bëgg nga ci de waaye doo ci mos de bëgg nga ci waaye doo ci mos de ba mu fënd ba warga wa fënd kaasee fënd mu mayo te du ko mos te warga wu neex bakkan bëgg na koy xet ji rek moo koy jëkk attir waaye du ko mos noonu la doon xeex ak bakkan moom moom bu ko defee bakkan damaa jëlale li yàlla tere waaye li yàlla tagana sax bu ko bàyyi bu ko jox lépp bu ko jox lépp ndax kon lee mu saañaañal àgg ci li yàlla tere li yàlla tagana sax da nga ko ci ab limite wala mu koy jaag nag ay taxawal si bakkan su koy tàggat kon ba tàggat bakkan ak jiyaar ak moom mu nga bokk na ci liy dundal liy dindi dooful iman yonent bi xam ngeen ne sallallahu alayhi wa sallam daa wax ne jihaad ju mag ji mooy jihaad ak bakkan mu nga fukkeel bi ak juróom-ñaar ci faj dooful iman mooy ñaan mbokki julit yi kenn ku nekk ci yéen kenn ku nekk ci nun bu jógee ne toog ak yàlla talal koy loxo ne ko yaa rabbi dooful iman daal na ma yàlla na ma ko fajal te bu ko def benn yoon bu ko def ñaari yoon na bari na bari mu nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna al imaana la yaxliqu fi jawfi ahadikum kama yaxliqu sawbu fasalu llaha an yujaddida al imaana fi lqulub yonent bi nee na gëm yàlla gëm yàlla dina xar ci xolub kenn ci yéen comme ñi ak am mbubu di xare nee na ngeen ñaan yàlla mu beesal leen seenu gëm yàlla seen xol kon boog mbokk ji di loolu di fukki yëf ak juróom-benn moom lañ gën a tànn ci yi nga xam ne ñooy faj feebaru dooful iman kon dooful iman mu ngi doon di feebar bu ñu war a faj kenn ku nekk ci ñun war a fee jóge seet ba xam moo ndax dooful iman dal na ko wala aslaf ci bokk dal na ko bu fekkee dal na ko ni mu koy xamee wan naa ko aslaf ci symptômes yi mi ngi ci kaset yi mu jéem a am kaset yi te déglu ko te xam ne loolu tam ay exemple la waaye du lépp lépp dina ci mën a xiyaata yeneen bu xamee ne dal na ko na jéem a xam asbaab yi yi koy waral ndax yàlla mu faju te bu wéree moytu asbaab yooyu ndax mu bañ koo dalal bu xamee asbaab yi na jéem a xam yi koy faj yi koy faj wax naa ci fukk ak juróom-benn pour tënkaat lépp pour tënkaat lépp asbaab yi nga xam ne mën naa war a dooful iman bi ci njëkk mooy sori environnement wu gëm yàlla ñaareel bi mooy sori xudwa saaliha bu lay tere ci yàlla ñetteel bi mooy ñàkk a sàkku xam-xamu sharia bu daal ci yoon ñeenteel bi mooy nekk ci environnement boo xam ne dafa bari ay mooy yàlla juróomeel bi mooy ittewoo adduna ba mu jeexal takk sa jamono ba tëloo jaamu yàlla juróom-benneel bi mooy ittewoo jamono ki doom ak mbiri alal ba mu teelaa wut yàlla ba mu teelaa beesal sa gëm yàlla juróom-ñaareel bi mooy topp bakkan ak bànneex ak ëppal ci lakk ak naan ak waxtaan ak jaxasoog nit ñi yooyu mooy yi waral dooful iman bu ragalee ba noppi yi koy faj bi ci jiitu mooy jàng alquran ak teewlu ko ñaareel bi mooy jéem a teewlu màggug yàlla ñetteel bi mooy sàkku xam-xam te sàkkoo ko ci loxoy borom xam-xam boo xam ne xudwa saaliha la njiit lu baax la ñeenteel bi mooy di faral di teewe al ajwaul imaniya barab yu gëm yi ñuy beesale gëm yàlla juróomeel bi mooy nga baril ay amal saaliha jëfi yiw nga di ko baril juróom benneel bi mooy jaamu yàlla yi nga di ko baril ay xeet yépp juróom-ñaareel bi mooy ngay moytu mujj gu ñaaw juróom-ñetteel bi mooy nga bari lay fàttaliku dee juróom-ñeenteel bi mooy nga fàtt nga ngay fàttaliku àllaaxira ak la fa mën a xew ci ay xew-xew fukkeel bi mooy bari looy zikrullah fukkeel beeg benn mooy di wéet ak yàlla di wax ak moom di ko toroxlul di déeyoo ak moom fukkeel beeg ñaar mooy nga màggal xurumatullah fukkeel beeg ñett mooy wala ak bara féete ak yàlla ak islam fukkeel beeg ñeent mooy góorgóorlu ci ibadatul qulub bëgg yàlla ragal yàlla yaakaar ko wakkirlu ci moom ilax fukkeel beeg juróom mooy ngay def muhasabatu nafs di rek la sa bakkan di éventuer sa compte ba xam koo toll ci bénéfice wala perte fukkeel beeg juróom benn mooy jaar ak sa bakkan ak sa bànneex ba not leen jaar la ni fi yàlla bëgg fukkeel bi ak juróom-ñaar mooy ñaan mbokki jullit yi lii ak lépp la lu aju ci dooful iman li koy waral ak bu dalee ni ñu koy faje ñu indil leen ko jële ko ci téere yi lislaam yi noo ngi yaakaar yàlla yal nañ ci yàlla jëriñ yal na leen ci yàlla jëriñ te jëriñ ci jullit yi ñëpp yàlla yal na nga dundal sunu xol yi yaa rabbi yal na nga beesalal sunu gëm yàlla yaa rabbi yal nag nu jàngal lépp lu nu réere ci diine ji yal nag nu fàtte lépp lu nu fàtte ci diine ji te yal nag nu jariñ ci li nu li nga nu jàngal yaa rabbi yàlla boo def àdduna muy sunu bopp itte mbaa sunu dayob xam-xam yaa rabbi yàlla boo xiirtal ci kaw sunu kaw ngir sunuy bàkkaar ab jaam bu saay-saay boo xam ne du la ragal du nu yërëm yaa rabbi yal nag nu soppaloo ak gëm yàlla te taaral ko ci sunuy xol te yal nag nu bañloo kéefar ak caay-caay ak mooy ndigal yàlla yal nag nu boole ci jub wa salla wa salli llahumma wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin léegi nag sëñ bi loolu mooy sama wàll li ci des moom yow laaj yi am nag ñu ngi ni xam na foog ngeen baru ndax kii wax ak làmmiñam ñu jiite nag ñi nga xam ne ñuy wax kii su paree nag bu ci xëjee borom làmmiñ soog a ñëw bu ci xëjee nag ñu ñibbi. kii day laaj nee na ndax dagan na ci jigéen mu dugg ay armeel di jégg bàmmeel yi wala déet moo am jigéen yu ne wala mag
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم xam naa ne fi ma bëggoon Oustaz Chayba baal ma ma tàmbale fi mooy ay kayit yoo xam ne ñenn ci mbokk jot nañ ko te mu aju ci waxtu julli Ndakaaru dafa am benn phénomène bu fi dangereux bu fi nekk ay ati ati at mu yàgg koo métti lool mooy seen timis yi day guddi seen fajar yi day naaj te loolu am na danger ci waxtu wu ne waaye bu ñëwee ci weeru koor nag day xaw a gën a danger masalan su ma bëggee jël misaal tey jii ci njël ci gox bu ma dëkk jàkka yaa ngi nodd salaatu ci six heures bu tegal trente neuf yéen fi ngeen salaatu tey ah six heures trente neuf képp koo xam ne six heures et demi fekk na la ngay lekk tey lekk nga bëccëg képp koo xam ne six heures et demi fekk na la ngay lekk tey lekk nga bëccëg loolu biñ ko yàggee nemmeeku ci ndakaaru ay at la bañuy xale yi ndaw ba léegi mu dinu metti waaye ñu jàpp ne rek loolu amuñ ci benn responsabilité ay xale la ñu noo ngi nag ci daara di ay dongee daal di jàng ca Fass Touré ñu fay def ay gëstu ci wàllu xam-xam waxtu ngir déggaw lu mel noonu te danoo fekkoon suñu waju di ko def waaye bi jamonoy dox jamono di dox ba nga xam ne sunu conscience ñi ñuy gën di yedd ñaar ba itam ñu gën di am ci ay possibilités yoo xam ne amuñu ko woon ba yàlla may ay jumtuwaay yoo xam ne mën nañoo toog ca phase turé calculer mboolem heure julli ci mboolem dëkk ci Sénégal yépp bi nga xam ne lati ak longitud dëkk bi ñu gis ne nag kon warugar la ñu attirer seen attention ci ne heure yi ngeen di xëdd di salaatu naaj ma yéen a ngi lekk bëccëg heure dog bi xëy na naaj xëy na guddi na waaye lu yàq koor nekku ci bu fekkee ne bii masalan tey jii di fukki fan ci koor gi teel fukki fan de wala fukki benn fukki fan bu fekkee teel fukki fan ci koor gi ñu war a dog sept heures quatre te tey fu sept heures quatre jote ci Ndakaar dog jot na ci wóor a wóor ci loo xam ne mën nañ ko prouver scientifiquement waaye bu fekkee quatre dafa jot yow dogoo nga toog ba six ba sept nga door a dog amul wàññeen ah kay am na wàññeen ndax jàdd nga sunna Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye kenn ne sa koor baax waaye si danger bi nekk dëgg dëgg dëgg mooy njël jot fajar xar 6 heures 24 tey jii ci la fajar xar ci Dakar 6 heures 24 bu dee Thiès 6 heures 22 6 heures 24 fajar xar nga continuer déggoo salaatu tax nga nekk di lekk ba 6 heures demi ngay lekk di naan ba 6 heures 39 yaa ngi lekk ba ci ko mu ci doon def ñun dégagé nañu suñu responsabilité ci kanamu yàlla kayit wii defar nañ ci lu bari te saare ko jaayuñu ko defuñu ko nen dañ koo dégagé suñu responsabilité fan yi koor gi la benn façon ramadan bi fi mu jeexee bis bu nekk fu ñu war a imsaake maanaam fu ñu war a bàyyee lekk ak naan fajar fu muy jotee transit ban heure lay doon tisbaar fu ñu ko war a jullee takkusaan fu muy tàmbalee ak fu ñu ko war a jullee timis fu ñu ko war a defee ak gee te gii am na ñu bari ñu ko am ku jóg mën nga koo photocopier jox say mbokki julit loolu ñu nekk luñ jot li ngir yàlla ah waxtu tey bi bu fekkee tey li nga defoon ci koor gi fukki fan kon tey ñu ngi war a dog ci sept heures quatre sept heures quatre fajar si ñu jëm fajar si ñu jëm ku lekk ba six heures dix huit arrêté saxaaba yi dañoo wax ne radwanullahi alayhim daaw ñu lekk ba fajar xaar dañ daan lekk ba nga xam ne li tee fajara xar jàng juróom fi ci aaya jo xaj na fi juróom fi ci aaya alquran alquran nag aaya yi dafa gudd yi gàtt yi digg doomu jàng alquran tam am na njàng mu xaw a diib am na tadwir am na taxqiq am na xadr waaye daal six heures bu tegal dix-sept minutes ci njël gii nu jëm kuy lekk ba àgg fa arrêté insaan jot na bu fekkee ne bii nag da ngaa tardé man ngaa ba tax nga continuer ba tey fekk six heures vingt quatre jotul boo lekkee lekkoo bëccëg am nga koor waaye six heures vingt quatre ci ndakaaru ci bisu tey ak suba ak gannaaw suba ku lekk lu ko weesu yaa ngi lekk bëccëg six heures vingt quatre loolu la dog itam sept heures quatre tey bu ëllëgee sept heures cinq mu ngoog loolu la bu ko defee ñu bàyyi xel ci xam-xam waxtu yi tey itam nii ngeen defee conférence bu jëm ci wàllu tawxid ak iman ak lim ci wàllu dooful iman ngeen jéem a ak itte ci topp doo xam-xam yi waxtu seen waxtu yi ngeen di julli ak ngeen di woor kat ay jaxu mu ngi ci am salaamaaleykum
bisagula xëy xam ngeen ne kon loolu am na solo lool ndax fii am na Birame Ba ak kanam Diallo kon laaj bu njëkk bi kii dafa laaj ndax dagal na jigéen du ko bàmmeel di jéggi bàmmeel yi moo xam ak loola muy ndaw waa jigéen moom li ci gën jigéen ñi ak góor ñi yàlla da leen a tere woon ak yonent bi kon yonent bi da leen a tere woon sallallahu alayhi wa sallam ziyaara bàmmeel jigéen ñi ñoom sax la seenu tere gën a dëgër gën a tàng gën a tàng te itam yàlla yonent bi kon yonent bi dem na ba rëbb zawaaraatul qubuur jigéen ñi nga xam ne dañoo bari lu ñuy fréquenté ay bàmmeel kon jigéen ñi na fexe ba bu mu bu mu dem ci bàmmeel wala boog bu fay dem na fekk muy dem boo xam ne bii lu munta ñàkk la te it na sa gàtt nañ la te it na néew li mu koy defal waaye jigéen joo xam ne daal dafa bari fréquence ci bàmmeel loolu du du du l'islam bëgg du l'islam santaane su fekkee bu fa demee nag du fa saalit du fa xotti ay yére du fa jooy te itam du fa def ay bêtises ak biddaa te day ziyaare ziyaare bu gàtt daal di jël si baax na waaye ki ko sartu mu bay nekk zawaar zawaar mooy ko xam ne dafa bari lu ñuy lu muy fréquenté ay bàmmeel waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ay ahadis yi bare bare yii wane ne bu daan julli day xabdu ahadis yooyu imam malik mii suñu njiital ngir andi na ci benn hadis ci muwatta dégg ngeen ustaz Cheikh wax na ko naan ibnu abdul bar mi nga xam ne kilifa gu mag la ci yërum malik ci taw jët surtout wax na ne loolu amul wuute ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag xabdu yonent bi moom la daan def ci julli julli yor ay loxo amul benn hadis benn hadis du bu wér du bu wérul buy wane na yonent bi mas naa julli yor ay loxo bu fekkee yonent bi la ñuy roy ci julli sallallahu alayhi wa sallam amul benn hadis bu wér wala bu wérul ñuy fenal yonent bi sax mos ñu koo fenal lu jëm ci julli mas naa julli yor ay loxo mosul am am na benn bo benn waay ba mu sa teg xaalis bu bari lu ma fukki junni ci ay dërëmi jamonoom ne moom daal fukki junni yi daf koo teg pour neexale ko képp ku ko indil benn hadis buy wane ne yonent bi mas naa julli yor ay loxo nee na fukki junni yii ku ko yëg benn hadis buy wane na yonent bi mos naa julli yor ay loxoom yonent bi mos naa julli te xabduwul ku ko jox mu jox la fukki junni te nee na waxu ko pour werante nee na day jàng dafa bëgg a xam lu wóor ndax hadis am na wala amul dafa denc fukki junni ya diir bu yàgg yàgg yàgg kenn jox ko dara kenn wax ko dara mu lekk xaalis kon boog li wér jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent daan jullee xam
kii dafa laaj ne ndax ndax gént dëgg la wala ndax am na jëriñ wala lu ci julli war a mën a jëlee gént dafa am ay xeet am na xulmu am na ruya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na gént waaju baax benn parti la bu bu jóge ci ak konent gént mën naa doon dëgg mën naa doon lu la yàlla di won ci li passé wala lu la yàlla di won pour jublu si waaye dafa am ruya as-sadiqa am ci wetam xulm xulm mooy gént boo xam ne ci seytaane lay bàyyi ko wala ci xalaati bopp te ginnaaw yow mënoo leen a xam ne li gën rek mooy nga def ndànk ci gént soo gisee spécialiste boo xam ne xam na ci lu wóor alhamdulilah boo ko gisul li gën a lentu ci sa diine mooy nga moytu gént bu baax a baax a baax te xam ne war a see mën a sukkandiku pour daganal dara wala xaraamal dara.
nekkul yaayu Moussa nan la.
tur yaayu Moussa. waaw maanaam bëgg naa beneen laaj bu gën a jëm ci diine boobu comme que sachet ba tontu na laaj bi ci njàlbeen nee na nee na yaakaar na ne yaayu Seydina Mouhamed moo war a gën yaay yaayu yaayu Seydina Mouhamed da xam naa ko moom. xam naa ko waaye waaye yaayu Moussa am na ñuy wax yu xaalit am na ñuy wax yu kaabit am na ñuy wax lii am na ñuy wax la waaye damaa defe ne daal jël turu nit di ko zikkar jël loolu loolu ngeen di def jël turu nit ginnaaw wax ngeen xam ne yaayu Moussa kon moom nit la ngeen jël turu nit di ko zikkar ah moo loolu nag moom loolu kenn zikkar tur yàlla yaa ayyuhaa allaziina aamanu uzkurullaah yàlla wax udkurullah la wax waxul udkuru ismaka la
waaw li mu wax léegi nag laa gënoon laa ci gën a jëm ci biir waxtaan bi jël nee na ndax dagan na ci jaaykat muy jaay li jigéen di xeesaloo
ah jaay lu jigéen di xees la dafa xaraam lépp lu islam xaraamal ku ko jëfandikoo defar gi xaraam na ci wàllu industrie jaay gi itam xaraam na charte njaay jaay dafa am ay charte waaw charte yi bokk na ci li ngay jaay ne doon loo xam ne yoon terewul ku ko consommé wala ku ko jëfandikoo jaay lu ñuy xeesal dafa xaraam jaay lu ñuy yokke kawar dafa xaraam jaay lépp loo xam ne jëfandikoo xaraam na xaraam mais ndax dagan na ci jigéen ñu am baax mu jàkk ngir jàng diine
waaw jigéen ju am baax na dugg jàngu